c'est problème de comportement individuel am na loo xam ne nii ci ci obtention permis ci rigueur mm-hmm. bi war a am ci nit ñi am permis mm-hmm. ci rigueur mm-hmm. ci am permis soo demee Europe sa permis dafay cher pour nga am ko euh, sanction bi war a am ci contravention mag munoo ko yar mag boo koy yar da koy yar ci contrevention mu am rigueur ci fay contrevention ak ci montant. Mm. parce que indiscipline bi am euh, ci tal yi. Mm. Euh, ak xale yi ñuy gis parfois ñu am 16 ans 17 ans li am. Euh, mm. route de Mbao. il y a deux semaines. xale bu am 16 ans. jël njaga njaay et insécurité boobu. ñun ñu nekk ci banlieue bi ñoo ko gën a xam. parce que guddi da ngay gis benn xale bu am 14 ans quinze ans yor. carapit di daw ci biir di jàng parce que noonu la ñuy jàngee dawal. Mm. et je pense que foofu il doit y avoir une parce que boo comparé suñu population li fi nekk ci oto ak liy dee ci année bi. Mm. yu ñu génnee ëpp na huit cent. mais aujourd'hui en France soo demee y a moins de cinq cent morts par an sur les routes donc il faut loolu du question il faut que ñu l'État. soit encore davantage rigoureux. ci ci permis ci sanction ci indiscipline. alors Charles Xafoor li mu wax rigueur laa ci gën a jàpp kon ñu jox militaires yi affaire yi rek ñu yor ko xanaa mooy doon la solution. les militaires sont des Sénégalais. ah mais bien sûr c'est mais... pas des étrangers. Mm -hmm. Charles Aïcha. bon d'ailleurs xam nga c'est très triste ça moi hier j'ai vu c'était c'est-à-dire. tu ne pouvais rien, ce journée est yàqu. su la koy yàqu. non mais d'ailleurs je t'ai dit qu'on a encore rien vu de ce point de vue là fii laa ko fi wax faut qu'on se dise les vérités. Mm. dama leen ne quand je passe devant le stade là. Mm. autoroute ma gis ñu téyegal benn grille pour nit nit. man du ah du ma mala quoi. fii laa ko fi wax. Mm-hmm. ñu teg gris teg ko mooy foog ma xoolaat sama bopp. te nit ñaa ngi jaar ci suuf. non dama c'est-à-dire je si bu fekkente ne nit. nga ne yow jullit nga nga ne yow catholique nga nga toog fi jullikat jullikat jullikat rek di peesal tari yi ak julli c'est-à-dire te mënoo nite. nite nit nite nitewul yara duxu mm-hmm. xamuñu luy coloré amuñu tu valoré xamuñu tu luy teelanga dootuñu dara tous idéologie alimentaire tout santé ku mun sa morom duma loolu nag mooy état boo xamante ne dafa fay je suis désolé Kafoor mais kii tu le règles en une c'est-à-dire l'indiscipline des Sénégalais rek permet de financer beaucoup de choses. rien que notre indiscipline. tous les jours. Mm-hmm. gendarmerie bi tous les jours même génnee ñu xool fond ñu leen di jox fond policiers yi di jox fond tous les jours en six mois lu nga fii jël Idrissa je me rappelle en 2002 excuse ñuy def permis point à point ça vient pas d'aujourd'hui hein mm-hmm. c'était sous proposition tous les syndicats yëpp jóg ne duñ ko def. Hmm. mais port de sécurité kii lu ceinture de sécurité. taximaan yi ne duñ ko jël. mais c'est n'importe quoi ce hmm. pays là. c'est un bordel à ciel ouvert et les gens vont mourir tous les jours comme des mouches c'est tout. non en fait il est important pour man dañu war a nekk de bons citoyens un bon citoyen. il faut moi, frapper dessus. oui un tu, bon citoyen ton enfant tu l' tu tout. non quand on est. il devient n'importe après. bu dee dama ne man bon citoyen non tu peux pas dire ça aussi. Charles. un enfant on l' éduque. non un le enfant quand vous savez combien de personnes pleurent depuis hier. Mhm. cette femme là qui est sortie pour aller travailler. que ses enfants vont plus voir. sa famille c'est-à-dire du feebar du dara quoi. c'est parce qu'il y a un idiot qui est venu ñaari il y a deux ans ces filles qui sont venues de France qui sont venues pour un mariage sur l'autoroute qu'est-ce qui a changé depuis ça qu'est-ce qui a changé on est là en train de parler ñàkk fay da mënul weesu loolu c'est vrai on en parle tellement mais les gens m'ont interpellé ne ma ñu def ko mais qui est la route tous les jours et puis on est là pas arrêter mais il faut citoyen après am ay comportement yu baax à tous les niveaux buuba waaw mais xam nga ñuy wax waxu éco bi suñu monnaie hmm. te oto yi sax mënuñu ko régler xam nga xam nga tubaab yi tubaab bi dañ tubaab bi dañuy natt hmm. parce que xam nga xam nga monnaie ah. comme li waa ji monsieur Goumba la wax teg plaque rek du teg plaque rek di indi c'est-à-dire benn instant question bi ñu war a poser suñu bopp mooy c' est bien boo de crier wax lii dugg na fi génn fii mais fan nga toll. Hmm. sa réew fan la toll ci ci organisation. foo toj c'est-à-dire li nga li nga xam ne moo gën a élémentaire. Hmm. loolu mooy mooy organisation de base bi. balaa ngay xam nga wax ni dañu bëgg suñu monnaie bopp dugg na fi c'est discours bu neex laa mais est-ce que boo demee sa kër toog wala nga yeewu suba di nga tu tu tu as que sa réew pare na. pour yore monnaie boppam parce que saa yi ku mënul yore ay oto yu yu ne fàng. pose ay ah, xam ñu koy ko gérer mais nga bëgg aspirer à avoir ta propre monnaie di ko gérer ni ko war a gérer su waay. tu as encore dëkk bi xola wuy ma neexut. ba a une joola mm. xaw ma lan mooy ay ambition wu Paul Kagame. demuma Rwanda mais ci li may gis booy dem ci genre mbir yooyu assainissement bi foofu lay commencé nga commencé gis que ni y a une organisation mm. balaa ñuy wax waxi suñu monnaie bu buñ ñu ko joxee te mënuñoo régler oto yii sax si permis sax mënuñu koo régler ku mënul régler permis mënoo régler ay milliards mm. nan waxante dëgg munoo mm. imprimer di réguler di jaay di kii on n'est pas prêt te pour ñu mun pour ñu pare état moo war a teg jéego yi mu war a teg pour assainir pour que yeneen yëpp topp si pétrole ak eh, euh, gaz gaz ak or ak jamaa ak leneen moo ci yem lépp lépp non dëgg la nañu pare wuñu on n'est pas prêt li gën a élémentaire mu ñu ko régler sur une petite ville comme Dakar mu ñu ko régler si pas possible man daal li ma bëgg wax mooy euh, c'est vrai accident zéro mënul am mm. mais tolérance zéro mu mënuñu rapproché si assurant accident wow. zéro. Mm. zéro mm. accident. waaw dafa am benn euh, Sénégalais temps yi au téléphone ah, il m'appelle ñu échange nii mu ne ma Pape est-ce que mu leen def euh, dans le cas de jàkkaarloo par exemple wala yow dafa benn émission sanction xam nga sanction. Mm. et puis moi je l'écoute mu ne c'est ça la différence et et c'était pertinent. parce que tubaab bi du la laaj ndax xam nga loi beeg xamuloo ko. da la koy fëgg. la prochaine fois tu vas tu vas le faire et et man dans tous les pays où nga gis euh, euh, chiffres yi di di di baisser mooy état yi il s'organise à ce que qu'il y ait une présence et un contrôle mais mais excessif. régulier mais mais permanent. Mm-hmm. ça on ne peut pas ne pas avoir d' accident loolu moom xel xalaatu ko parce que mbiru yàlla aussi am na yoo xamante ne def si daf si bokk c' vrai. Mm. mais nga jël le maximum de disposition. mais c' est en appliquant la loi et de de de de chercher à avoir tolérance zéro mm. si on si on pas. Mm. Mamadou Goumbala accident yi. gis nga accident yeeg yëpp gis nga problème mu Sénégal indiscipline beeg yëpp ñuy wax. xam nga Sénégal dëgg-dëgg lu fi ne man damay politique kii day politique homme politique bu génnee ci élection yaa ngi préparé élection lépp lu naqari nit ñi ñaare da koy moytu loolu moo ñu indi fii fii mu ne le cartel des transporteurs homme politique bu leen am sur le dos tu es sûr que tu vas perdre les élections te homme politique li muy bañ perdre les élections te gars yi comme ils sont pas raisonnables liñ bëgg ngay def. bërki démb damay dem kër Ahmed Amar foofu ci koñ bi. Mhm. benn taximan di wubbi di def ndox ma ne ko nuyu ko ne ko sëñ bi yow de parce que mën naa koo wax ndax am na lu ma gis ci photo yoo xam ne boo gisee nit ki mën naa koo wax. lu ma neex te mhm. di jawaab jàmm. ma ne ko yow de bawal gaal mu ne waaw ma ne ko sëñ bi dama leeraat ngir yàlla nga baal am nga visite technique mu ne ma xoolal ci koñ bi. koñ bi foofu carré boobu. ma ne ko est-ce que yow am nga visite technique mu ne ma xoolal am na visite technique te oto bi ko xamul dara it boo ko xoolee xam ne kii et une épave. permis mën ngaa am permis te da ngay toog sa kër man permis France laa yor mais def naa soixante quinze leçons avant ma soog a am permis ndax duñ la baal dara. mais est-ce que sa permis France mën na daw Sénégal. Euh, boobu ba tey. non non mais euh, non non lay bal renouvelé non non il faut euh, yow yow sa permis balaawul. <laughs> Ah, tey la gën a ah, man damay dem France. bi fi nekkee ba léegi waaw non. non man ah, tout ay kayitu français kay de. non j'ai une carte de séjour j'ai pas de papier. ah non non mais yoruma yoruma non dama la bëgg a wax leen. non non non mais dans mon casting tu as fait une erreur quand même. parce que tu nous plantes un français ici. il n'y a pas à malade, malade. Monsieur Boumbalade, je comprends tout à l'heure pourquoi j'étais destructeur. Eh, eh, mais vous ne m'aviez pas. Macky Sall am na fi directeur de cabinet. ah je comprends. allez Pape Djibril à toi. bàyyi la doyen waay. et eh, Pape Djibril à toi. mais permis valable permis grave valable ah. non non damay dawal am na benn période boo xam ne boo ci nekkee ci tolloo. non ku war a renouveler non nga koy renouveler. un homme politique comme comme yow. nga war a loolu c'est un problème am France nga def certificat fii. non non Sénégal yow fii nga dëkk. léegi yow da nga war a légaliser sa permis da nga ko war kii da nga ko war sénégalisé ak policier de contrôler na ma je vous parle sérieusement policier contrôler na ma buuba ma jox ko sama permis waxul ci dara mu eh, kaay ñu dem conduire ma ak yow allez sur l'accident <laughs> man comme ni ko ñëpp defee laa koy def mooy jaale déjà ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci waaw ñaan suñu borom mm. yërëm di wax ne je pense que 2019 thème bi ñu gën a débattre mm-hmm. lii ci la bokk invité nañ fi ministère euh, des transports et euh, mais encore une fois engagement bi dafa des ba tey pour régler certains problèmes définitivement mhm. la wax na ko léegi il y des réformes révolutionnaires yoo xamante ni politicien du ko jël parce que dafa amoon un caractère impopulaire qu'il faut assumer oui. ils vont pas le faire mhm. malheureusement wax na léegi ba tudd cartel waaw te groupe de pression yi mais justement ñoo lay jël en otage même boo bëggee dem élection <laughs> ku nekk tëj la ne la waxal ah naa nga oto yi juróomi la nga ne naa ko def juróom nga xamante ni dinañ dem ci ba fukki at ak ñaar. <laughs> comme naan di ko fi dugal n'importe comment. Mm. donc je pense que le problème fondamental mooy li mu wax léegi est-ce que les politiciens pare nañu pour def le pas. sur certaines questions yoo xamante ni question euh, pour ay génération la mais pas pour élection mm. mais tant que bàyyiwuñu tant que bàyyiwuñu weddi gis bokku ci mm-hmm. je pense que il y a des questions yoo xam ne duñu ko régler parce que yii nii ay ambition ay ambition immatérielle la hmm. yoo xamante ni foog xeex bu mag a mag lay laaj waaye hmm. nag quelqu'un qui a une préoccupation une haute idée Électoral. des prochaines rek moom moo ko mën a régler on continue décompte macabre bi man xam naa ne bii du bu mujj nag hmm. malheureusement et ça malheureusement on est tous en sursis ñi nekk ci tali bi vraiment bi ci topp bi ci topp bien sûr ah. alors euh, Famara Ibrahima Sagna dialogue national bi démb lañ ko installé euh, ci li ñuy bu ñuy tënk tënk daal nee na waxtaan wi bëgg nañ euh, ñi ciy participer ñëpp après gis ci seen bopp te it buñ ci gisee seen bopp ñu mën ko jëfee buñ ko jëfee mu doon njëriñu ñëpp noonu la Famara Ibrahima Sagna gisee mbir mi xafoor ci yow laay ñëwaat ci dialogue bi waaw mais lii moo ko tax a jóg. Mm-hmm. mooy dajale dajale gis-gis yëpp ñëpp wax seen xalaat euh, mu am synthèse. Euh, li am solo mooy synthèse bi. mais est-ce que ñëpp ñu ngi fa parce que ñu ngi wax waa kër Sonko ñëwuñu. Euh, waa kër waa kër Ablaye Wade mujj nañ euh, tamit bàyyi. Idi su ma juumul sa Seck tamit ki ko fi nee na demul. waaw mais xam nga. dialogue bi dama la ñooñu nag xam nga mënu leen te ñooñu bokkuñu. ci ñoo xam nga loolu dañuy def bi dafa am ñaari volets. il y a le dialogue il y a le dialogue social et économique bu ñu boolee noppee daje yépp mhm. ñun dialogue politique bi pour fichier électoral bi ñu càmbar ko le code électoral ak yooyu la ñu statut du chef de chef de l'opposition danañ ko fa wax mais lii ñu naan dialogue national Famara di ko diriger mm-hmm. c'est déjà dans les assises mm-hmm. assises yi wax nañ ko mm-hmm. nañu woo Amadou Lamine Loum mi ngi dossier yi ñoom ñëpp ñu actualiser ko mais lii dilatoire la ak ay caaxaan la xam nga paa bi li mu wax ni paa bi li mu wax ni waaw c'est ça le drame effectivement du pays mm. c'est-à-dire dialogue national c'est pas un dialogue politique mm. dialogue national dafa dajale tous les segments wu Sénégal yëpp. waa waawoon ñu ngi fa waa Tuubaa ñu comme na dagguma dagguma la déglu ko dama ne la dañoo am juróom-ñetti commission yoo xam ne nii juróom-ñetti commission benn bi politique la benn bi transparence la benn bi question ressources naturelles la benn bi paix sécurité benn bi stabilité réew mi ñoom opposition bi kenn boycotté wul ñoom ñëpp dem nañ ci dialogue politique bi. bi nga xam ne nii depuis ñeenti weer mu léegi léegi non la leen intéressé. Ah mooy élection. Ah, statut de l' opposition. code électoral. Oh. mais la nga xam ne nii ñoom ñëpp muy réew mi muy ñëpp. dem nañ ci dialogue politique ak yéen ñii sax dialogue politique bi ci lii la bokk benn pàcc la ah. ci juróom-ñetti pàcc yi ñu war a discuter c'est pas sérieux donc bu ñu ñëwee naan dañu boycotter dialogue national c'est pas vrai ça veut dire que les vraies questions ne vous intéressent pas il y a que les questions politiciennes qui vous xam ko waaw xam nga aller chercher Famara mais fii Charles vas-y non monsieur Goumbala vous peut-être mais Idrissa Seck ne peut pas parler n'importe comment de Ibrahima Famara Sagna. bu mm. peut-être oui mais pas Idrissa Seck. d' abord danaa la def bala ngaa dem. non bu ma wax déglu rek. non dama laa gis nga def déedéet dama ne waaw assise nationale yi ku ne xam ne ne réglé na problème yi. waaw mais ça c'est derrière nous. waxuñu Famara la personne de Famara. waaw waxuñu kooku. ñun li ñuy wax. waaw mais je di nga ma bàyyi ma wax de. li ma bëgg a wax loolu da nga koy rëcc. assise nationale yi réglé na question ressources naturelles. rek ressources naturelles euh, euh, jaay ko ba noppi. <laughs> yàggu mbala yëpp noppi leen may bu ma wax loolu ma wax. oui c'est clair Famara c'est une personnalité qui a fait ses au niveau national depuis au moins 62 ou 63 ba mu yoree banque BNDES xaw ma ban banque. di gravir ba nekk ministre. kon nekk ministre de l' intérieur ou autre ñoo nekk doon parti socialiste. yow xam nga yow xam nga donc ku ne xam na ko ci compétence am. kon xam mais dama ne. lañu fay wax moo amul njëriñ. Charles merci ne ne transformez pas gis-gis en débat. waaw waaw non moo fi indi débat. Ah, wax loo ne Famara déedéet. non kay moom dama laa gis. Charles gis-gis. yow bàyyi xam nga Famara dama ne dafa am ñoo xamante ne lu leen tax jog moo am solo il fait pas partie de ces de ces béni-bébés bouge comme on veut donc bu taxawee waaw je pense que sans compter il y a d'autres questions beaucoup plus importantes au-delà de sa personne boo xamante ne mm. bu ñu fa toogul toog c'est pas la peine ñuy ñuy wax leneen malal c'est tout yes mais dialogue national la société civile populaire ñi nga xamante ne ñu initié <laughs> populaire n'est pas là n'est pas là cest c'est-à-dire la coordination de Noo Lank n'a même pas été conviée au dialogue. le mouvement Y'en a marre n'a pas été convié. mouvement boobu. bi ñu juddoo léegi matul fukki fan ak juróom. mala je les composantes de. ça mais c'est que plateforme société civile chaque deux mois. mu am tur est non vous prenez vous choisissez une société civile que vous pensez. être beaucoup plus correct et beaucoup plus diplomate. politiquement correct. mais Malal oui. non mais je veux dire. Malal, la société civile. Malal Mignane mu ngi fa mooy coordonnateur ñoo lank. non dama ne. mu ngi si dama ne dama ne dama ne. la société. oui Mignane mu ngi si Mignane c'est une particularité. il était là-bas hier non. mais c'est une particularité je veux dire. Ah. je veux dire donc ñoo lank sax ñu ngi fa. amul frappe dégage par exemple France de amul waa frappe. frappe de. mais tu sais moi cette affaire du de de. amul waa frappe je veux dire waxuma sax dañu bañ wala bañuñu. ils non mhm. termine. ils ils ne sont même pas conviés. Mhm. je veux dire que c'est très sélectif. c'est sélectif. waaw bon man daal man mooy li ma wax sànq rek man li may xaar mooy euh, président Macky Sall bi ñu fal ak. Euh, régime bi. ñu liggéey. waaw ci li ñu digle ak sénégalais yi ci cinq ans yi. ñu dawal ko lii. franchement man du ma jël sama focus ma def ko fi moi je veux gars yi ils nous ont vendu un programme ne fii lañ leen jëmee. Hmm. nañu déroulé. c'est allez Papis waaw. Euh, ñu dem euh, eh, gis-gis. Eh, euh, <laughs> ah Pape Djibril ci dialogue bi ale c'est pas parce que vous avez. <laughs> vous avez le le même tailleur rek. allez allez <laughs> bi ma non non man bi li ma jeex mooy. éco franc mooy il faut il faut que ñu time timing bi wax nañ ko. Hmm. mais il faut que ñu xam ndax dialogue la ñu bëgg wala concertation. ak qu'est-ce que le président appelle par conclusion consensuelle. Hmm. parce que démb ay 3 heures du matin laa jël sama temps déglu <laughs> discours ba mu jeex. Hmm. waaw son discours. Famara aussi nañu wax les termes de référence mooy lan lan lañ ko jox comme feuille de route. parce que hmm. dama koy yërëmaa ah, parce que gis nañ bi ñuy jëli Amadou Mahtar Mbow lii la waxoon. avec la commission de réforme des institutions. bi ñuy jëli Iba Der lii la waxoon avec la bi ñuy jëli États-Unis ba si Diagne les réformes de l'enseignement supérieur bi ñuy jëli Moustapha Sourang ak Doudou Ndoye la la réforme sur le foncier ana mu tey mm. ana commission yooyu yëpp ana lu ñu jur ci quotidien sénégalais yi te tey ji boo jëlee ba ci biir dialogue bi daanaka toutes ces questions qui devaient être réglées par ces différentes commissions mais ñëwaat na ci biir dialogue bi on a par excellence des lieux de dialogue c' est l' nationale. indi nañ ci haut conseil indi nañ dialogue social indi nañ. ay kii yu dul jeex. yaa ngi dégg mais encore une fois pour man le dialogue doit commencer aujourd'hui te loolu ci bilan 2019 la bokk par la publication des rapports de l'IGE de la Cour des comptes de l'OFNAC léegi parce que dialogue bi nee nañ dañuy waxtaani corruption lutte contre la corruption alors que OFNAC a ngi fi déjà ba pare donc commençons d'abord par régler ces questions là leneen li aussi mooy honnêtement pour man Famara fi mu toll waroon nañ ko bàyyi mu noppalu waroon nañ ko bàyyi mu noppalu mu servir le Sénégal à un autre pour man est-ce que wax nañ ko léegi plus de pour cent sont des jeunes est-ce que Famara peut parler à ces jeunes là avec ñi nga xamante ni ñoom laa dal ñan ñooña fa nekk ban légitimité la ñu am à part décider délibérément euh, encarté wu. yes. Ah, allez le prochain gis-gis. Ah, bi ci topp gis-gis bi ci topp. Pierre euh, Côte d'Ivoire la ñu yóbbu avec euh, Guillaume Soro. Euh, dafa dafa mi ngi aux dernières nouvelle mi ngi en Europe France sax précisément lañ ñu wax. donc moom ñëpp xam nañ léegi problème bi mu am ak euh, Ouattara donc déclaration bi ce n'est que prétexte ni ñuy dalee ci kaw ay farandoowam la daal IGFM lañ ko jàngee prétexte la. dañ ko bëgg a euh, jàpp un peu di. texte dañ bëgg a jàpp. Papis <laughs> les méthodes à euh, boo xam ne bu la bëggee gêner. Hmm, nga nga mais c'est amul leneen amul leneen amul se que xam parfois on n'a même pas besoin des politiques wala des. technocrate pour. c'est pour comprendre. waaw ça coule de source quoi c'est cela va sans dire c'est évident. Mm-hmm. Bouba. Mm. Guillaume Soro Ouattara. ECHO. Hmm? ECHO waaw. Ah. <laughs> bu bu bu bu Soro waxoon hmm. <laughs> Charles. mooy ECHO ELEC. Khapo Joker c'est des questions euh, d'ordre intérieur Côte d'Ivoire aw lu ma si wax on est des africains panafricanistes mais c'est une question de politique intérieure donc euh, ñu déglu ko ça c'est pas une politique def naa <laughs> oh, quatre ans neuf waaw mm. élection Gbagbo yi mm. identification carte d'identité élection Gbagbo publique euh, les résultats. Mm. élection législative ba mu jeexee ñoom lañ dem Nations Unies. Mm. gis nga sóoru Ouattara dafa cuune mais mënoon na ko bañ indi fii. Soro mënta tee Ouattara gagné bu waree gagné. Mm. Soro amut amut électorat propre. pourquoi Côte boo jëlee le nord. nga def un tiers. un tiers déglu rek. Mm-hmm. li ma xam Côte bu ma ko ah, waxoon moo tax muy gis gis nga Côte d'Ivoire Nations Unies fu ñu dikk ci réew lépp la ñuy xam nous on travaille avec les préfets les sous-préfets ak euh, les kii les magistrats ba tey Côte d'Ivoire les soirs presque damay woote pour xam affaire u Soro mais gis-gis gis-gis waaw ba tey Soro ak kii ak Ouattara hmm. ñoo bokk électorat ñoo bokk hmm. presque ethnie les Akans mooy les bawle et les añi r kee fa béjjee moo fa ëpple nga ñëw au sud mooy les Krou Bagbo moo fa ëpple mm-hmm. muy un tiers un ah, bi bu àndee daane ki ci des kii nag électorat moo kee ñoo ko bokk peut-être ko bëgg a gêner moo tax mu def ko lim ko def mm-hmm. waaye man sóoro lim élection présidentielle Soro fii mu ne mënu koo gagné même bu fekkonte ne euh, euh, Ouattara bàyyi na ko ndax Ouattara ñoo bokk électorat mm-hmm. loolu mooy problème bi allez Pape Djibril mais justement c'est on ne participe pas à une élection pour la gagner toujours mais mm-hmm. on peut jouer un rôle je pense que aussi li ñuy xaar ci sunu homme politique yi mooy c'est pas toujours conquérir le pouvoir ak éterniser wu ci tey jii Soro peut-être que am na ñu koy bàyyi xel te mënoon na aider à une conscience citoyenne mais li ma bëgg wax pour wax li euh, yaakaar naa Papis moo ko wax mais c'est des pratiques yoo xamante ni Afrique nga koy gis mais justement Guillaume Soro kii euh, Laurent Gbagbo daf ko wax ne ko tu dois ta place aux armes et le jour où tu n'auras plus les armes tu n'auras plus ta place quel est le rôle que Soro a joué à un moment donné de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est le chef de la rébellion. Euh, euh, cest dire que aujourd'hui pour man tamit. avec des euh, waaw pour man tamit li mu li mu li mu récolté rek keroog loolu laa doon wax fii ci benn débat. Mhm. c'est-à-dire que aujourd'hui homme ci homme politique yi ñi ci ñi ciy nekk di naqarlu. le fait que Guy Marius Sagna nekk kaso. su ñu nekkoon pouvoir. dañuy dañuy am beneen discours le discours change selon la la situation la position bi nga xamante ni moom au gré des intérêts mm-hmm. léegi li ma bëggoon jaaxal jeexale der mooy dafa am un fait marquant boo xam dafa am en 2019 mm-hmm. mooy Serigne Mountakha Bachirou xalif général des Mourides autofinancé une université boo xam 37 milliards la nar a coûter mm-hmm. je pense que lool c'est important te boo gisee ni ñu ko nase ça va ça ce sera un impact boo xam dina am solo trop surtout xale yi nga xamante ni ils sortiront ingénieur te ci filières yi ñu gën a soxla la muy agronomique artisan ak affaire yooyu et je pense que ça c'est important. alors gis-gis bi ci topp wala da nga am booy daaneele virgule comme d'habitude. <coughs> waaw li Pape Djibril am na solo trop. non dinañ dinañ ci. bëggoon naa waaw fin xaaral rek. Ah, euh, ñu dem ci bu mujj am na beneen. alors hmm, gis-gis bu mujj bi dañ ñu jege mënuñ leen ci woon bañ boole dimanche incha allah loolu suba la puisque dugg nañ samedi ci nasaraan euh, dañuy def élection. présidentielle Guinée-Bissau deuxième tour bi nag diggante eh, ñaar ñooñu ngeen gis la muy euh, Sissoko Mbalo ak euh, Domingo Chima Pereira moom mooy candidat PAIGC amoon na 40 pour cent euh, Umaru Sissoko Mbalo moom 27 virgule 65 la am waaye ñi daanu ci premier tour bi yëpp moom la ñu wëlbatiku jàppale donc ñu njort ni mën na am élection bu serré lay doon dimanche bi ñu dëgmal te ni ma suñuy voisins suñuy dëkkandoo yoo xam ni mënuñu ci woon bañ a wax Pape Djibril comme fa laa daanele mais kan kan moo ci nekk kii euh, celui qui prône la kenn ki euh, Pape Djibril après <laughs> en fait li may ñaan yàlla rek mooy mu jàll si jàmm et que Guinée-Bissau aussi li ñuy xaar ci réew ak ay keno yu dëgër mu mu nekk ko définitivement que élection parce que Afrique aussi dañuy gëmloo nañu élection day transformer seen vie mhm. alors que élection du transformer suñu vie dañuy génn élection et on rebolote on a encore les mêmes soucis les mêmes problèmes on rebolote mhm. élection dafa war a déboucher sur un développement économique et social harmonieux en mettant le focus sur les hommes et les femmes capables de soutenir cette transformation-là. Hmm. Donc élection c'est très bien mais depuis waa ji defoon son fameux discours de la boule la boobu ba tey euh, élection yi en Afrique elles valent ce qu'elles valent mais en réalité on rebolote. Hmm. Alors euh, Khafor c'est des voisins yoo xam ne oui quand même ça nous hmm. concerne par la géopolitique. Tout à fait. Absolument. Je suis je suis d'accord dafay li Guinée. Bissau day impact day impacté <coughs> Sénégal euh, jàpp naa ni fii Guinée Bissau jóge ci histoire am suñu ñëwee tey parce que euh, élection yi souvent c'était sanglant les changements de mm-hmm. régime euh, c'est par coup d'état bon assassinat de président su ñu demee sur les dix dernières mm-hmm. années et président bi fi jóge ñu faloon ko par les urnes mm-hmm. il faut rappeler fait inédit président sortant bi troisième la jël ci élection bi jàllul donc dañ ko éliminer premier tour je pense que loolu c'est lu am solo la ñuy ñaan yàlla rek dimanche euh, incha allah que ki nga xam ne nii moom moo majoritaire mu gagné et puis Guinée-Bissau continuer nekk ci stabilité parce que stabilité Guinée-Bissau dafay impacter ci Casamance Charles waaw on est en géopolitique hein bon j'espère que ñun de suñu côté on on a tout prévu en fait bu may xool Domingos. Hmm. damay xam ne ku nekk mun na nekk président. Hmm. <laughs> parce que quand moom moom saf baar quoi dañ doon toog di nii di waxtaan. ma yeewu rek Domingos. oui moom hmm. moom saf ga saf oh, baar bu Pikine Sénégal la defee. c'est c'est vraiment impressionnant quoi. Mm. man ne serait-ce que pour ça dama bëgg mu gañewaat. bon moi, moi j'avoue que je peux. je passe mon avis. non non je passe bien en fait. man man benn préoccupation laa am. oui dafa am si kenn si candidat mm. yi. je je je je les confonds ñoom ñaar parce que dafa am ko si. Euh, c'est lui qui dit que il va renégocier frontière les océans entre le Sénégal l'histoire du pétrole. kooku nag yàlla bu mu gagné quoi je fais du lu ma ragal. gis nga histoire politique bi Guinée-Bissau am. Mhm. ki am quarante pour cent au premier tour. Mhm. léegi il a tout le monde en face de lui. Mhm. bu ñu ko gagné. s'il fait pas le jeu. kenn du fa toog te attention de. alors euh, Pierre. il a raison. non li mu li mu ah, li mu wax li mu wax kat li mu wax leer na de. bu gañewul kay mooy que dëkk bi instabilité am na. Euh, institutionnel non. le 3 qui a plus de 20 ouais. Il n'y aura pas ça. Même, mais, mais, même l'armée a pris les devants pour voir qu'il n'y aura plus de coup d'État dans ce pays. Armée, ah, ils ont, ils ont, ils ont waaw damay non man daal mais mais quand même deux mille deux mille dix neuf bi daal dafa dafa am na benn quand même benn nit boo xam ne. Hmm. quand même ma marqué nañu ñun ñun sénégalais lu ah. lu lu baax lu bëri. Ah. et je pense que quand même Sadio Mané quand wax fa dëgg yàlla ci at bi. nekk na sénégalais boo xam ne. fierté la la wax nañu ci moom. fierté Sénégal mooy mbàkk yu fay. mooy mbàkk yu euh, fay mais non mais mais non mais <laughs> kenn weddiwul lool. à dafa wax lee ba pare non mais dama xam nga man Pierre am na photo bu ma la ñaanoon pour la ah, fin. non de non non non du ko yàq. waaw hmm. maa ngi wax saajo eh, Mané. yow nga ne sa kilifa la tey li mu wax ni dafa mel ni damay jël kii contre kii. Eh, mbàkk yu fay ñun tam suñu kilifa dañ ko li mu def dafa rëy mais dama ne wax ci saajo maane mm-hmm. wax fa dëgg yàlla di doomu Sénégal représenté ñu partout. Mm-hmm. loolu wax fa dëgg yàlla dara newu ci wàllu. Pierre am na photo bu mu la ñaanoon pour terminer. Ah, ah. waaw parce le Sénégal. da Silva photo bi. oui social bon euh, photo sëñ Saliou laa ko ñaanoon pour ñu tëjee ko ndax euh, ni ñuy wax bi ñuy tàmbali dugg nañ ci 28 euh, décembre yamook. Euh, bés bi nga xam ni ci la làqoo woon atum 2007 la woon euh, ñaar fukki euh, fukki at ak ñaar kon bu ñu tolloo ci 2019 bi ñu koy euh, fàttaliku Pape Djibril ak euh, Gumbala da ngeen ci sànni dara. ok sëñ Saliou kay ñëpp ko bokk. ay ca Pape Djibril <laughs> c'est un ah, patrimoine national ñoom ñaar dam leen ko cëral. non non xam nga bi may commencé sànq dama wax ne histoire géographie mooy. doomu ñaan ñaan naa waaw il faut ñu am relation boobu dafa am solo. Mm-hmm. xam nga saa boo ko nuyuwaan nekk yarkat. Mm-hmm. Mm-hmm, saa boo ko nuyuwaan nekk kilifa li mu lay njëkk laaj mooy ana gone yi. donc euh, yar bi. dem na sax ba ne jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom ci li Serigne Touba doon def ci mag ñi. Mm. te loolu moo doon tey jii moi je connais des ay ay xale yoo xamante ni ci moom la ñu jaar. mais yàlla xam na ne ils défient le monde ils sont à l'assaut du monde fi mu ne dans beaucoup de domaines. Mm-hmm. yaa ngi dégg je pense que ne loolu moo tax ñu amal ko njukkal transcendé woon na. en 93 hommes politiques yi dañuy ñëw di ko seet mu def déclaration mu ne booba ba tey gars yi ngi ñëw kenn ku ci nekk di ku ko ku mu jàppale mu ne waaye ku ci ñëw ba dem su ma xoolee sa mbooloo doo ma ci ëppale. moo tax xaw ma fu may far. donc je pense que réew mi aussi il faut que ñu dellu ci loolu am na ñoo xam mënuñoo bokk fenn fu dul ci Sénégal. Mm-hmm. te bés bu dëgg jotee aussi ñu wax ko. gumba la te am na lu mu waxoon it ma wax la ko. ba ñëpp dégg ko nee lépp lu lu lislaam awma ci ak defar awma ci yàq mm-hmm. te lii fi xewoon bërki mu ñu koy wax sëñ saaliwu ñi mu jàngal ñu mokkal alxuraan mm-hmm. amul benn sëriñ bu ko fi mas a def ah, te sëñ saaliwu maanaam ñu mokkal alxuraan. Ah. ci daara yi ni mu jàngal. Hmm. sont trop trop nombreux. Hmm. il bat euh, le record domaine ak yar. Hmm. te sëñ Saliou quelles mais demal foofu. demal demal xel koom demal njurul demal njàppandal. ak deuxièmement sëñ bi kenn daaw kenn daawul mun na gone ci këram sëñ Saliou. am na sama benn xarit bu jógoon Paris xam bokk sëñ Saliou benn xale ñëw euh, boor yi vingt heures di di troubale sëñ bi ne ko waaye waa ji ne ko doo bàyyi li ngay def sëñ bi xol ko ne ko diw demal tër ne ko demal tër ma xale bi waaw demal mm-hmm. gis naa sëñ Saliou ànd ak xale xale yi dal ci kaw mu daanu da mm-hmm. doo wax xale yi dal daawul laaj xale laal xale daana ko yar daana ko jàngal te daawu ko duma daw ko jëng macha mm-hmm. allah. ku ku kuy mottali man. mais en fait man bu ñu waxee sëñ Saliou rek je pense un peu à Cheikh Béthio quoi parce que quand même euh, il aimait beaucoup Serigne Saliou. Mm. yàlla na ko sëñ Saliou taas ci barkeem amiin ba mu dugg biir àjjana mhm. mais date bi nii man ak Bouba Ndour mu ñu fekkoon France ñu annulé lépp lu ñu doon def ñu annulé lépp lu ñu doon def mhm. allah yal yàlla yokk leeram taas ñu ci barkeem loolu lañuy ñaan di leen ñaanal yéen nit euh, ñi ànd ak ñun ci 2019 bi yëpp 2020 incha allah dàq il faut ñu il faut ñu remercier Sénégal mhm. wax fa dëgg yàlla si si non baalu leen ax euh, non dëgg la. kon yow wóolu ma ci. yéen ñi jël émission bi non def ko seen yëfi bopp. Hmm. li ñuy yëg bu ñu génnee ci biti li nit ñi di ñu wax. Hmm. wax fa dëgg yàlla. bu doon ay nax sax neex na. Hmm. wax fa dëgg yàlla ñu ngi leen di remercier yéen a tax ñuy def émission bi yombut. waaye yal nañu yàlla may courage ñuy wax li ñu xalaat. nee nañ ngeen mukk jamais jamais comme bi comme buuba comme comme buuba voilà buuba xëccoo naag man li ma leen bëggoon a wax. kon euh, ñu jàppee ko noonu ñu ngi leen di ñaanal amuñu seen euh, fay ñu ngi leen di sant sant bu amul àpp.